waaw kay ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen waa 24 actu xanaa di indi sunu xalaat rek fii réew mi toll ginaaw buñ nuyoo sëñ Mountakha xalif général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi te wér xanaa di leen wax ni ku am kilifa gu mat kilifa da ngay def yëfu kilifa sëñ Mountakha ku roy ci moom da baax te roy ci moom weesuwul ak dal. ak maandu woote jàmm ku am sa kilifa lu mu nekk danga cey nekk boo bëggee mucc dañu bàyyi wax ju bari ji wax ju ñaaw ji ak it jot gu bari gi ndax daanaka yu bari di xew tey jot gu bari rek moo ko waral kon war nañoo am changement bu baax a baax a baax te xoolaat suñu bopp xoolaat suñu doxalin demaat ci tool yi dem liggéeyi te jaamu ji yàlla suñu borom baalonte àq te tey ñaan ak dal ci réew mi euh, nit ko yemalut waroo lëngoog moom te koo yemalut waroo lëngoog moom mooy ku ci nekk la la yàlla séddee nga nekk ci demal nga nekk ci lu nit am nga yéene ko ko lu nit am nga yéene ko nag mooy ni la yàlla def na la neex ni yàlla def keneen neex la waaye boo bëggee jël cërub jàmbur boole ko sab cër kooko du gis lu mën a jàmbaarloo ak yow jàkkaarloo boobaa jàmm day jeex seen diggante te loolu maa ngi koy lancé ci kër yi ci famille yi di ko lancé parti politique yëpp di ko lancé képp koo xam ne tamit yaa ngi jóg ngir bëgg a jëm diine te bëgg ko jaarale ci tarixa yi kon naan jàmm ci réew mi suñu mag ñu baax ñu fi nekkoon kat ñoom ci benn système rek lañ nekkoon nu fexe woon ba ay rek taxaw ci réew mi. nuñ fexee ba jàmm nekk ci réew mi nuñ fexee ba ñëpp di xamante di jiwante jàmm di bind ay téere di samp ay daara wala yaakaar naa ku leen roy te bëgg lu baax te bëgg ëllëg boo gisante ñoom doo rus fi nga war a teg sa tànk kon daan loolu lay lancé appel. di ko tamit hmm. ñun nga xam ne ñoo jiite réew mi war nañu yërëm tamit suñuy ndaw. Hmm. ndax buñ naa jamono li fi xew lu ci bëri. Hmm. nee nañ moo tax ndax bëgg bañ nañ maanaam nga xam ne tamit ñoo jiite réew mi. waaw Sénégal moom dafa nekk benn dëkk bu ndaw nekkul dëkk bu rëy ndax euh, ñu fi dëkk système bi nga xam ne moom la war di doxee dëkku diine la. ku jël suñu mag ñi si niñ doon doxee boo doxee ci système boobu du la sonal waaye ku fi bàyyi loolu tamit jéem a indi leneen di doxee ci loolu loolu mooy indi jafe-jafe mooy indi réer mooy indi ku ci nekk tamit di fippu bëgg xam ne lii ñu la bëgg teg noteel la nga taxaw bëgg koo bañ ndax xamuñu ko Sénégal xamuñu ay xamuñu fitna xamuñu jafe-jafe kon képp koo xam ne dañ la def raisul jumhuriya maanaam ñu ma ko mën a waxee mooy ñu def la nga nekk kii kilifa dëkk bi ci wàllu état danga war a am programme bu leer boo xam ne ku ci nekk dana ci gis sa bopp te loolu responsabilité la bu yàlla ba yàlla dénkee responsabilité nag danga war a njaboote njaboote mooy nga boot ku nekk ki far ci yow ak ki faru ci yow nga yemale leen te xam ne foofu nga nekk bu la carte yi ñu la fal képp doon doon fal doo fal ay nit ñu bari ñoo boole seeni xob jox la ko kon nag man damaa jàpp ni nit ku nekk danga war a xool ñu la fal nga dimbali leen. boo demee ci yenn dëkk yi li tax tey boo demoon France bëgg a jël nitu France andi ko Sénégal day bañ li tax muy bañ mooy ñooñu dañ leen a dañ leen a dañ leen a ni leen seen président yi di taxawee seen état ni mu leen di taxawee nga xam ne man ngaa am sa doom sax waaye maanaam. fonk gi nga xam ne état dina ko ko fonk di ko couvrir di ko jàppale maanaam yow mi nga xam ne yaay papaam sax doo ko jariñ lu toll te loolu mooy tax yow nga bëgg dëkk ba loolu mooy tax yow loo am bëgg koo bëgg ko yóbbu ci dëkk ba kon jàmm moo jiitu lépp te ku ko amul doo mën a nelaw ku ko amul doo mën a wax jàmm doo ko mën a def te ku amul jàmm doo man a liggéey ndax jamono yi yi fi jàll li fi xew yëpp gis nga liggéey yëpp taxaw liñ fi yàq kenn xam nu mu toll kon képp koo xam ne boo yëkkatee baat bi mën naa andi coow mën naa andi tension foofu loolu nga tegaat ko ci suuf loolu daal di ñaan. jërë euh, gis nga tamit ñi nga xam ne jot nañ leen fee jàpp wax tamit xeex pour ñu génn ba nga xam se ne ci la sëñ Mountakha yabale woon ci se a marre bi pour ñu teggi seen tànk ci manifestant yi est-ce que jotul tamit ñi nga xam ne ñoo jiite ñoo ñoo xam seen jàppoon nañ la ñu leen a baax loolu ci moom beneen domaine nga ma bëgg a dugal waaye domaine boobu domaine boobu li ma ci wax rek mooy lépp ci jàmm la bokk xam nga tey ba suñ mën taxaa seetee dara ba gis ni lii moo gën eh, def ko moo gën ndax ñàkk ko def mën naa jur ay musiba yu bare bare damaa jàpp ni bu fekkee sëñ bi jàpp na ne lii moo gën woo leen waxtaan ak ñoom nga dem leen toog déglu ma ah li gën daan mooy maanaam ku ci nekk ñu ñu ñu xool li gën a rafet li nga xam ne dina andi jàmmi réew mi ñu def ko ndax jàmmi réew mi moo gën lu jàmmi réew mi te maanaam nit dañ toll mama yoo xam ne lu mu lekk dong ni mu koy tëwee ak lu mu naan ak lu mu tawax taxawee ak njabootam leneen loo ko ci bëgg a dooleel tamit jafe-jafe gu rëy li doon ci moom kon daan kon daan li gën mooy ñu fexe maanaam jàmm di am ci réew mi ndax suñ mun taxaa moom lépp lu muy ñaan nit maanaam bëgg jàmmi réew mi tax ma di ko ñaan waaye liggéeyu maamam bi doy na ko sëkk te moom dong la teg ba moom dong la xool kon nañuy bàyyi xel lépp loo xam ne yëkkati na ca kàddoom ngir bëgg mu rafet nañ koy jàppale ca loolu te xam ne ku ko def danga am ndam ku ko deful tamit li fi xewoon mën na fee xew.